لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سمعتك سبحانك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله wa safiyuhu wa xaliiluhu xayru nabiyyin arsala arsalahu llahu ila alaalami kulli bashira wa nadira allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad salaatan wa salaaman daa'imayni mutalaazimayni ila yawmi ddiin أيها المسلمون أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وتعالى أما بعد فيا عباد الله fattaqu llaha haqqa tuqaatih wa'lamu anna allaha ta'ala yaqulu fi l-qur'aani l-'aziim wa maa xalaqtu l-jinna wa l-insa illa liya'buduun maa uriidu minhum rizqan dénk suñu bopp di leen dénk ñu ñu minimaliste bëgguma ñu bàyyi may tool bëgguma ñu cotiser ma at yi soxla ko waaw maa ngi daal ñu koy wóññi soxla ko ñu joxeel ma dépense parce que loolu man manqué kaw manqué kaw la kon lenn rek a tax nit leen mooy ñu def lii tax mu am jàmm dama leen a bind tàggu ma leen indi leen ci kaw suuf. tàggu ma leen bind leen li ma bind ci des ñëpp ba pare ma bëggal leen sama bopp ma ngi leen bind leen fu ma deful keneen te mooy ma may ko moom mu mën a wuuteeg samay digal moom rek laa ko may moom rek te su ma neexoon ma def ko ko bëy ak xar yi bëy yi ak xar yi fi leen yàlla jaar loolu dama lañuy jaam lépp li yàlla bind nit doom ak jinne ñoo ci mën a jaar fu leen yàlla jaaroo te loolu yàllaa na mu am su nanguwul moo nag mu am ndax bëgg mu mu mu jëriñoo karaamam waaw mu jëriñoo liberté parce que liberté soo mënul def autrement tu n'es pas libre kon pour mu exercer pour mu dund liberté boobu ma ko defal ndax dara ko maa moo tax may ko mu mën a def autrement waaye ko defee guddi. ndax li koy may jàmm xam rek maa ko xam ala yaalamu man xalaqa wa huwa latiful xabir li koy may jàmm man rek maa ko xam moo moo am intérêt ci dëggal ndax su ma dëggalee xam li koy may jàmm mu def ko am jàmm fii ak fa mu jëm su ma dëggalul exercer na liberté maa nangu mu mu bañ ma fee dëggal waaye bu ko ndax li tax ko jug da doon xam nu muy def base la du ko xam ndax moom ay ay xam-xamam dafa mi loo ko jox li xel mi léegi mu wóotale ko ak yeneen bàyyi ma teewul mi tam dafa am ay limite ma ko bàyyee boppam du jóg fu baax moo tax ma bëgg mu déggal ma man nga xam ne ko ci ndax loolu ci la intérêt loolu mbokk jullit yi ñu leer nañ la amul lu ñuy interpréter ñun yàlla moo ñu bind moo ñu fi indi li ñu sant fii ci kaw suuf mooy ñu tabax kaw suuf ba kaw suuf neex a dëkk ci jàmm jooju am gannaaw bu suuf neexee dëkk ci la ñu amee jàmm àllaaxira ci nga xam ne moo gën a yàgg moo waaye nag loolu mënut a nekk suñ ko déggalul moom mi bind àdduna bind ñu xam ñun ñooy ñan xam lu ñu booleeg àdduna nan lañ war a def ba jëriñoo ak boobu bu ñu ko dégluwul du sotti dara du sotti moo tax dara sottiwul bañ si théoriser ne nañ nañ nañ ngir yàlla nañ yàlla bàyyi ñu essayé suñu bopp bañ ko théoriser ba ñëpp nangu ko dara doxul te mooy laïcité laïcité du dara lu génnee loxo yàlla ci nit ñi dundee yàlla na bàyyi ñu essayé parce que am te bu ko sa loxo laal ñun duñ ko nangu. am te bu ko solo xalaat mooy lii bëri ngeen waaye bu ngeen deful nii non na bàyyi rek essayé mu bàyyi biñ essayé fan la ñu fen reyante rek reyante settante bañante xeebante rek bañ commencé ba léegi foofu la ñu ak bu ne buñ dëgmal rek buñ ko jubee ne xëy na mu tane mu atum daaw kuy waxal dëkk te yàlla tax xaw ma yeneen dëkk yi waaye Sénégal bi moom dañuy dellu gannaaw day dellu gannaaw loolu mooy li wér bon boo ko xoolee rek ay tabax yi bon tabax yi moom bëri na fu ne façon tabax bu ne am na fi mais est-ce que ñi dëkk yi tabax yi ngi nit ñi nelawatu dalatu bëgganteetu yéenanteetu jàmm loolu mooy li li fi bees kese kon mbir mi leer na nañ loolu moo tax l'islam sant ñuy jàppalante parce que mbir mi suñ ci jàppalante wul duñ ci génn te mooy jàppalante ci déggal yàlla yàlla wax ci suratu makida wa taawanu ala jàppalante leen ci mën a nekk ay jullit ci mbaax ak ragal yàlla foog ngeen jàppalante ci il faut jàppalante ci il faut ñu jàppalante ci jàppalante ci heure yëpp la jàpp mais rawatina heure yi ñu toll nii il faut ñu jàppalante suñu ci jàppalante moom ñu ci génn jamono jafe na jamono jafe na xam fooy jaar ba génn ci kon il faut ñu jàppalante yonent bi salaasam feetu ko ci xadis bu wér na wallaahu wala wallaahi wallaahu fi awni al abdi maa kaana al abdu fi awni al abdi wallaahu fi awni al abdi maa kaana al abdu fi awni al abdi yonent bi nee na yàllaa ngi ci wetu kii jàppalee moroom yàllaa ngi ci wetu kii jàppale ay moroom ay dëkkandoom di ko jàppale kon ku jàppale say dëkkandoom yàlla jàppale la te yàlla ku mu jàppale nga génn ci kon doy na sëkk yitte fexe ba yàlla jàppale la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bokk na ci liy tax yàlla jàppale la nga jàppale ñi nga tane ci lépp nag jàppale leen ci njub d'abord fexe ba njub jàppale leen ci leneen lu mën a doon ci xam jàppale leen ci wér jàppale leen ci dépense mais surtout jàppale leen ci ci jub yonent bi nee na man dalla ala xayrin fa lahu mislu ajri faa'il képp ku won sa dëkkandoo lu koy may jàmm nga won ko su ko defee da nga am tiyaaba ju toll ni def gi booleeg sa tiyaaba ji nga amal kon tegtal sa dëkkandoo lu koy may day maye ñaar jàmm jàmm diggante ko ak jàmm digal bi ko ne loolu jàmm am ko yonte bi def ci ne fa la an yahdiya la an yahdiya allahu bika rajulan wahidan xayrun laka min gerte bi nee na maa ngi ji ci yàlla benn waay benn waay jaare ci say kat wala say ba jub moo gën gënt jur gënt gënt bu xam ca xaw sa jëf jur moom leen feneen waay bi mooy moo gën adduna bi ci biiram benn waay jaare ci say ba jub wala mu jaare ci sa jëf ba jub moo gën adduna bi ci biiram kon man nañoo dimbalante ci njub yi ma wax nii moo tax ngir jàppale mooy nit ci jamono joo xam ne ku dul ñaan boo ci génn naka jëkk ñaanee génnee ñu bëri ci jafe-jafe yi nekk mais rawatina jamono ji toll nga xam ne pexe yi daa bëri pexe yi ñiy fexe ba nga ñàkk jàmm dafa bëri moo tax def pexe bu toll ni pexe yomb bàyyi ki ki mën pexe mu ragal ko mu gën a wóor nga xam ne moo ndax képp pexe kooku mooy borom bi tabaaraka wa moo tax wax ak moom farata la mu dox sa diggante gaa yi farata la ndax yow gaa yi mënuloo leen tus seen seen contrat xañul ci kon nag il faut ñu jubóog yàlla min ndax képp lépp wax ko mu dox suñu diggante gars yi nañ leen boole nañ boole gars yi boo amee kilifa am njaboot boo xam ne daa dégg moom mu ëpp la doole dina nokkati da nga koy boole da nga koy boole si kilifa gi léeg-léeg sax nga bëgg ko boole mu xamal ne soo ko boolee dina la gën a toxal mais booy boole da ngay boole waaye loolu il faut ñu boole ñu teel ñu dox di dox suñu diggante i nekk ay jullit il faut ñu boole leen ak yàlla yow jàng Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ñu wër ak ñi ñi ñu bëgg a gàllankoor bu ñu leen di boolee ak seen borom yow ci bi ne allahumma da ngay boo xëyee da nga naan wa bika amsayna wa ngay def dara nee na yàlla su ma yeewoo yaa tax su ma yendoo yaa tax su may dund yaa tax su ma dee yaa tax te xam naa ne foofu rek lañ ci yow kon nag doxal sama diggante gars yi loolu ku ko wax loolu bu xam ku ko wax loolu loolu looy doyee di tuur ndox ci sa buntu kër loolu ku ko wax looy doyee di tuur ndox ci say bëri nga toog ku la wax ne ndox mën naa régler sa problème ku la ko wax est-ce que ndox ba mu ba léegi jàmm ko tax a ndox alal fi àddina bi ndox yàq fi àddina bu yàq yaxeet ndox yàq fi àddina bi yàq yaxeet ba yëg ci mujjoon benn nit jaamu yàlla bu déggal yàlla la yàlla da mu tabax gaal mu ne ñoo ñoo fu ndox jógee rek jàmm lay ba tax boo doo ñaan dara jël rek sa wante daal rek gis ko ci kër gi yëpp ak buntu kër gi. gis nga fi kum fere gi laay wax ba léegi gars yi jafe jóg yaa ngi faral rek te ñu bëri ci ñuy faral du loolu lañ dox ji boo wutul borom jafe jóg sax sotti woon na ndox ci pël bopp ndox mi rek la wul problème wul nañ ñaan yàlla Muhammad nee na maa min abdin يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر من, من لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وقت ثلاث مرات لم يضره شيء لم يضر شيء ولا لم يضره شيء يأتي من ku xëy suba wala ngay bëgg a dëkk nga ne bismillah bismillah alladi laa yadurru maa ismihi shay fi l ardi wala fi sama wa huwa samiul alim dara nga ko ñett yoon dara mënatu laa lor dara boo xëyee suba wax ko dara du la laal ba nga yib soo boo gontee wax ko dara du la laal ba nga see loolu gën di yomb gën di yomb bindal ak laaj ak jënd parce que kii moom lu mu wax te borom béykat bi fen na ba tey kii moom lu mu wax dëgg nit oto rey na ko ba tey ñu làmb nit ñi rafet ci béykat ñu ne béykat bi loo doon mu ne yëpp yëgu ma xaw ma ne dana dana am accident waaw da ngay dellu ci kii dul fen ki mënut a fen mooy yónni yàlla Muhammad lu mu wax dëgg ñun lu ñu daan ñoo ko teg si bopp ndax. feebar ba pare xam garab yi lay fekk te doo ko naan yonent yàlla Muhammad nee na sallallahu alayhi wa sallam man qaala xiina yusbix aw yumsi allahumma inni asbaxtu ushhiduka wa ushhidu xamalata arshika wa malaa'ikatika wa jamiica xalqika annaka anta allahu laa ilaaha illaa anta wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a'taqahu allahu wala aataqa allahu rubaahu yonent bi nee na képp ku xëy wala nga gont nga ne yàlla maa ngi nii naa ci jàmm léegi li mooy nga seede ma yaa malaaka yi yanu arsh ngeen seede ma ak sa malaaka yi yëpp ak mbindéef yëpp damaa bëgg ngeen seede ma ne man nangu naa ne anta allahu laa ilaha nangu naa ne muhammad rasuluka wa nabi yonent bi ne soo ko waxee léegi sa ceeru arab na safara nga waxaat sa genn wàllu jëmm ji arab na safara nga waxaat sa trois ceeru jëmm ji arab na safara nga wax ko ñeenti yoon sa jëmm arab na safara waaye lii waaye yan a da dox suñu diggante man duñ ko mat ndax duñ fenn ji ba mën ko jàng duñ ko doon duñ nangoo def benn benn ba mën a ba mën a jàng yàlla bi ñu koy wax ñu ñi tane ci ñun mooy ñu koy transcrire transcrire nag wala bu dee tradition ki traduit trahi su ki traduit trahi na ki transcrire moom kenn waxul lu muy def waaw boobu moom duñ def moo gën a garaaw lii yëpp soo ko boolee euh, mooy yan yàlla Muhammad salaa salaam yamu ca wax na beneen xadis man qaala xiina yusbix wa xiina yumsi thalaasa marratin raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nabiyyan kaana haqqan ala allahi taala ay yurdiyahu ay yurdiyahu yàlla tamit nee ku xëy wala nga kon nga wax ñetti yoon ne man nangu naa yàlla nekk sama buur nangu naa yont yàlla muhammad nekk sama yoon nangu naa lislaam nekk sama diine ku ko def yàlla dana waral ci boppam kontaan yàlla dana sas ko bam kontaan loolu bëgg loolu mbokk jullit yi nañu fonk sikar nañu fonk ñaan nañu wut ay topp di ko def subaa moo gën suñu yaakaaraan yi ak wut solution ci ko ko amul bu ñuy wut solution nañ ko wut ci ko am mooy borom bi tabaraka wa taala nañ fonk si kàddu nañ ko fonk nañ wut ay ndox di ko jàmm subaab borom suñ ko defee danañ ci génn ndax dara duñ jege te dara duñ laal ndax borom bi tabaraka wa taala moo ñu bind indi ñu fi ne buñ ko bàyyeeg suñu bopp mu aar mu wax suñ ko bëggee bàyyeeg suñu bopp lan la ñuy wax mu wax ko yenn ci biir ci wax kon moom gàcce gaalaam ñun ñii ñoo ci des aqulu qawli haaza wa alhamdulilah alhamdulilah wa salaamun ala ibadihi alladina stafa alayhim wa ala imamihim wa asbarihim sayyidi wa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xassana xassan baliigan ala taqlil al-kalaam illa bil xayr fa qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyasmut wa yaqulu rabbuna tabaaraka wa taala waddaakiriina allaha kathiiran waddaakiraati a'adda allahu lahum magfiratan wa ajran mbokk yi yoon jaawu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu ne daj na ngir bëgg ñu bàyyi wax lu bëri ci tey wax lu am njëriñ ñu bëri nañ waxtaan surtout Sénégal Sénégal bu bëri wax bëri wax parce que loolu moom ku dul jëf da ngay wax parce que temps yi am il faut ñu occupé ko ci daal dañ ñoo sàttoon ñu occupé ko ci jëf ñun nee nañ duñ jëf duñ jëf lu ñuy jëriñ àdduna duñ ko jëf lu ñuy jëriñ àdduna parce que fii ñàkk moo fi tax a am ñun nee alal kenn du ko liggéey di ko lijjanti kon jëf moom ñu ko def pour am at alaaxira moom lijjanti nañ ko ba dañ faa war a dem rek pour àjjana parce que ñun sénégalais yi ñoom gars boobu waaye kon ñun duñ jëf moo tax foog wax moo tax wax rek dañuy wax wax wax bi ñuy jàng iraan naan bu ñu masaan dañuy dëkk bu ñu paree ñëw ñu laaj bi nan ngeen di comprendre tey yéen seen parce que yéen kenn dëgg yéen ñëpp yoo xam ñu ñu laaj ñu ñuy comprendre tey ma ne ko loolu technique la parce que ñun dañ koo jàng bi ñuy bi ñuy jàng liggéey ñun wax lañ doon jàng moo tax xam nañ technique wax boo xam ne ñëppay wax ñëppay ko wax rek wax rek yonent bi nee na wax ju bëri ji ko bàyyi yàlla de man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yàpp yonent bi moo ko wax fal yàpp xayran aw liyasmut soo gëmee yàlla ak yonent bi del wax lu baax del wax wax wax ju am njëriñ wala nga wala nga noppi yàlla ne yàlla takk azaakiriina allaha kasiran ñi nga xam ne fu ñu toll di tudd yàlla moo xam ay góor lañ wala ay jigéen ñooñu aada allahu lahum magfiratan wa ajran ñooñu jaamu bu bëri la leen yàlla dencal ci adduna ak laaxira mbokk jullit yi réew mii fi mu ne nii réew mu jafe la ndax nit ñi xamuñu fu ñuy teg seen moo tax fi mu ne bu am pexe rek nga ko mën a dugg au lieu ñu dem ci diine ci jàng ko xool lii ara aar yokk léegi dañuy bàyyee suñu boppam charlatan yi ak bu xaabakat yi bu xaabakat yi. xañ nañ leen adduna te danañ leen xañ alaay bët bu set nga dégg rajo bu publicité bu xaaw ka maamal lii maamal lële maamal lii maamal lële maamal lii maamal fenn ne rabu jinne ajum faru jinne fenn ay fenn ne ku nekk di woote Sénégal yi seen adduna yàqu na ndax bu xaaw kat li muy yëkka def mooy day yóbbu sa fi ndax ki la wax daal li la dal xam waaye mun la koo wax yow am nga problème parce que da ngay bàyyi mu di jënd mun laa wax mukk dëgër dëgër wala mu yàq sa sa digganteeg say mbokk ndax nit ki bu yóbboo sa fit yóbbu sa fit mooy feebar bi hôpital mënu koo faj te yow ki nga gisoon ñu feebar yëpp hôpital lañ def yow sa feebar ak gàllankoor yow moom risque yaa ngi bëri risque bu rëy parce que hôpital day leen fi defoon ñu faj feebar yi yow sa bos hôpital ñu ko faj lu benn ñaar li tax hôpital bu ñu du feebar bu ordinaire diw moo la ko teg mu yàq sa diggante diw moom yow dem na. parce que feebar bi leen dal hôpital bu ko faj léegi mooy lamp rek ci gars yi ku mën a ñaan wala ku mën a jàpp wala am xam wala sa chance du lu rëy ko ko amati parce que xëy na lu bëri bëri hôpitaux yi demi demi feebar maladie hôpital daal na yow sa bos hôpital bu ko faj yow chance hôpital donc sa chance dund wàññeeku na cinquante pour cent donc bàyyi xel si sa dee yow ku dee nga dee ku dewul da ngay dee sa fit la nga séntu dee daal di dee parce que dee moom boo demee ba jàpp ne dee doo ko fi def da ngay dee parce que loolu ci dogal yàlla bokk yow bu sa fit yàq sa diggante ak say dëkkandoo ndax nee nañ la li la dal ñoo la ko teg waaye li gën a grave mooy da ngaa dégg da ngaa dégg sa waay da ngaa dégg yow bis boo dajeeg ñoom bañ ne la da ngaa dënku téewu ci parce que buñ ne la da ngaa dënku pour nga gëm ne da ngaa ci jul dal dënk lu jiw ci la ko wax te ñu wowoon biñ la ko waxee ngay door a tëj lan moo la tëj benn waaye li nii boo xam ne dafa nekk xale bu góor jàng ba am diplôme wala wala déposé ñu jëm ñu ne ko da ngaa tëj mu dem di déposé ñu dossier bi gëm ne daa dëgg boo wóotuwul duñ ko jël kenn ko jël ndax lay tax duñ ko jël moo ko fay wax kenn ko jël parce que dafa dëgg te gëm na ne daa dëgg donc bi muy ñëw da doon essayer wuutal naa bu baax ki am diplôme di dem di wuti liggéey wóor ko ne dañ ko war a jëm muy dem mu jël parce que comportement bi muy wane bañ jël ci moom lay def dañ koy wane parce que ñi lay jël psychologie lañ def. bu ñu xoolee muy dutee ndegam yow mii wut si liggéey yow bu wóorul ndax mën nga fi liggéey kon man mii wut liggéey wut moo doon dama doom du dama la wóor wóor wóor sa bopp nga nekk ci jàng xale bu jigéen war a am borom kër ñu ne la dangaa tëj yow keroog ngay tëj ndax waaye su fa ñëwati di la seet li ngay gëm mooy dafa ñëw rek waaye boo du ma takk ndax man damaa tëj ci loolu nga koy waxee ñu takk la dëgg la nag parce que bu fa ñëw da nga koo xam ne comme man mënut ma jaww dañ ma damaa dégg ci loolu lañ arab yi ñëpp kenn dara ndox parce que ñëpp jàpp nañ ne dañoo dégg te fekk moom day ferre bëggati njëriñ moo tax mu tëjee bëggati njëriñ moo tax mu tëjee parce que bu gëmoon bu la gëmloo da ngaa dégg du mën a tëjee ko ci sa xaalis bu njëkk mu jël sa xaalis fit. yàq sa diggante ak say mbokk te sa loolu fii la dem yombal xaar na door a am problème la dem yombal xaar na door a am problème ndax soo demee yombal xaar ki ngay njëkk a amal problème mooy yàqu yàlla mi waxoon ne maay wërsëgal maay dundal maay rey maay feebarloo nga ne ko mënuloo li nga wax loolu keneen na ko def da nga def loolu da ngeen jàll bal lay ba yëngu ci ne ko dama doon fen doom xamoon naa ne mënul dara mais ah dama amuloon pexe jaaxle rek yàlla jaaxle rek sonn rek la fi yàlla ma sonn mu mu mu mu ne ma man man man man nee mooy yëngal rek yàlla bu bëri man nga laa jëgal nga jóg bëgg dem sa cousin bi wala sa doomu bàyyi bi doo tamoon dëmm wala nga mën a mën a la egg eh, sa yow kaay fii wax dëgg wax dëgg jot na al'aana xas-xasal xaqu fii kenn mënu fi fen est-ce que maa la liggéeyoon est-ce que maa parce que foofu alaaxira duñ fa amul maslaa jaabu ku fa gis luy rek si problème doo ko bàyyi xam nga du ma dem alaaxira amul ay julli tuuti laa fi indi ak koor bu tuuti benn waay xasoon ma dama xam ne xas mën naa la sama problème lay bàyyi ma dem kaay rek la ko loolu mënaan la leen di bañ a fekk mënaan la leen di parce que yeneen bi rek la war na ñaari yi ko fi ak yeneen bi mu bëri lool diggante loolu li rek moo ko def lislaam donc mooy diine boo xam ne mi ngi tàmbalee ci yow di yittewoo sa mbir lu jiitu sa papa ak sa yaay di gisal tiitu sa papa sa yaay di gisante la lislaam intervenir loolu sa jàmm wax sa baay ne ko jigéen ñëpp mutuñ yaay tànnalal xale bi yaay bu baax wax sa yaay ne ko góor ñëpp mutuñ baay tànnalal xale bi baay bu baax moog yow moog yow ba nga tudd moog yow moog yow ba nga xam ne mu ne la sawaay fii ma la indi dafa compliqué mais dinaa jàppale danaa la boole ñoom yàlla Muhammad mu wax lépp loo war a def gis nga soo yewoo tey mu wóor la ne yow bala ngaa teg sa tànk ci suuf na fee nekk parce que xamuloo ci suuf la fi fanaan waxal nangam boo waxee nangam boo tegee sa tànk wax loola teg sa tànk jóg ba nga dugg ci mu ne teel douche beeg néeg bi te sama biddeef dañuy yàgg bala ngaa dugg ci biir duus bi waxal loo xam ne mooy tax nga jur jàmm nga wax loolu dugg ci duus bi nga bëgg a jël bis bi mën a jël fi ngay jël bopp waxal nangam nga bëgg a jël kër bi mën a la waxal nangam nga bëgg a jël oto bi mën a la waxal nangam nga dugg bureau bi mën a la waxal nangam ngay jënd bureau bi mën a la waxal nangam ngay añ mën a waxal nangam ngay reer mën a waxal nangam ngay tëddaat ba dara gisul lu dul nelaw mu ne la tëddali sa côté day doon même boo dee woon tukki bi garaawul mais tàmbalee nañ doon waxal naa lu mu kooku wàccu la yow wallahi wallahi wallahi wallahi bu ko respecté woon doo leen ci benn bu xamante daf doo ko soxla ndax doo am benn problème ñu bàyyi fi yonent bi topp bu xaar ñu toroxal ñu àdduna ak yàlla yàlla kon bokk jullit yi nañu bàyyi xel suñu bopp yonent yàlla Muhammad moom dong moo ñu yéene jàmm moo borom tabaraka wa taala moom mu yéen moo ñu yéene jàmm kon nañu dem ci moom laaj ko ñu ñaan jàmm nañ bàyyi bu xaabakat yi seen bopp lañ ci nekkal dañuy fen y compris ñiy jate sax alxuraan parce que pexe yi fu nekk lañ ko ñiy jate alxuraan bu bëri ñoom jate dañ jate ñoom jëlee li ñu leen gën a muus rek mooy ñoom ci alpha lay jafe da ngay def loo xam ne ñu naan la gën naa jënd jeeg wax naa ko moom fekk jëndewul tous ay pexe la pexe taw pexe rek te li ma leen wax lu lu la teg am na ci koo xam ne tax na ñu fas jarbaatam ndax jarbaat bi dafa nekk ñaareel. mu bëgg a dàq aawo bi mu bëgg ko cee jàppale ñu wër ñu wut ay pexe jël ay bagage suul ko ci kër jëkkër ji fekk jëkkër yi tukki li may wax ni ki bokk ak jëkkër ji ndey baal bu mu ko wax xale bi jékki-jékki rek dugg ci dof dof la ko teewul la mu daal di commencé jàng alxuraan di jàng di jàng mu ne jëw ngay ngay digle ko mu ne waaw mu ne loo def mu mu ne ko man maa dugg ci moom ah waaye yaa dugg ci moom lu tax ma dugg ci moom mu ne waaw parce que bu euh, jëm moo ma boo moo moo boolee benn sëriñam sëriñ boobu moo ma ko dégg waaw lu tax nga def lu bon lool ana nit ki mu ne moom ci kër ga su leen demee place sangam diggante waay ba ak fële foofu la foofu la euh, ñu dem ci kër ga gas ko génne ñoo ko fa def ñu génne léegi ñu ne aw bi moo ko moo ko liggéey suñu boppam aw bi daal jiite jiite jiite jiite ba ñibbi seen kër waa ji woo frère bi wax ko frère bi dem ba am frère bi ñëw léegi ma ne frère bi ñëw jabar xale bi am jabar xale bi am salaamaaleykum ñu ko waaye moom moom xamul xamul la mu noppi sëñ bi def ko sëñ bi def ko waa si jàng am waa jàng am jàng xale bi mu daal daal di ko jënd ci xaw na naa ko fan damaa doon mu mu ne ko yow ayoo kii bi mu paree mu daal ne ko a ci génnal génnal mu ne waa dafa naan dinaa génn dinaa doon dafa génnal dafa ne lekk de daan jàng àgg si jàng génnal waaye mu ne génn xale bi jigéen bi door a xoolal salaamaaleykum jaay na nga def waa ji dee jàpp ko cinéma bi mu ni saa yi mu ni sëñ bi yow yoo xam ne xale yow yow yaa léegi bàyyi si caaxaan ngeen ma ne su fekkee si jabaar da ko man buñu si bàyyi mu si suñu mu ñibbi wax ko rak bi rak bi bind leeral ñaare bi ne ko comme man léeg-léeg nga nekk jinne léeg-léeg nga nekk nit te man xaw ma ban heure nga ci nekk moo tax ñu gën a la